Gaston Production présente. Gaston Production, le Don King de l'arène sénégalaise, organise un autre grand choc de rêve, le choc des chocs, le choc des titans. Attention, Balla Gaye 2, le lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2 ki doon na Double Less, Balla Gaye 2 ki ne woon man xaalisu làmb ñu ma ngente ah mooy daje kan Gris Bordeaux ki doon le Tigre de Fass ki doon Mbaye Guèye ki doon Tafa Guèye ki doon fa làmb soso dinañ ci tëgg ndënd ba ndënd xar. ngeen jëf mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ñu ngi fii Pikine ci 200 cent Pikine bi nga xamante ne moom la ñuy sampaat 100 pour cent moo amoon Pikine ñu dem ba benn moment gars yu bari gisuñ ci seen bopp comme ni ñu ko waxee daanaka tas la defoon ñu bañ koo wax wala ñu wax ko loolu moo ci nekkoon ñu dem ba yàlla dogal ñu àndaat. wala hmm. seeni dërëm ak seen i ñaar dërëm. seen i hmm. déem ak seen i nekk ci kaw nag di waxtaan. kii Pape Sarr la ku ko xam-xam ko ak moom ci 200 pour cent bi mhm. yan objectif lañ ci am dama ko nuyu bàyyi ko nuyu mbokki internet yëpp su ko defee ñu waxtaanee ko waaw Lamine maa ngi lay maa waaw fay naa la maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu équipe bu Kewel Info yëpp di nuyu Gaston production bi di la nuyu bu baax waaw di di nuyu tamit euh, Buzz suma xarit parce que Buzz moom ku ko laal laal ma waaw ku ko laal laal <laughs> ma moom waaw waaw perperview bës boobu. ku koy tudd rek. see boo nga sóoraale Pape Sarr parce que Pape Sarr mu ngi sa kaw. macha allah waaw naa ci ñu bari ndax bës. waaw site yu bari ah. yoo xamante ne mooy loolu dañuy signaler gauche jàdd droite. mbaru bu ko dara dal mukk dara du ko dal ku ko laal xam. waaw may nuyu nag waa Lutte bi yëpp. di nuyu nag sama papa ji Gaston Mbengue parce que suma drapeau bi daf cee def xaas bu weex tàll jàppale ma si. Hmm. suñu ndogo yi tamit mu def noonu. kéwél Info tamit maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax Fallou Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax ma gis liggéey bi muy def di ko rafetlu di nuyu waa Pikine yëpp di nuyu Boston borom diaspora bi suma doomu ndey borom Kër Massar maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Ibou borom Belgique aussi suma xarit maa ngi koy nuyu Idaali Ñing Jamaïcain waaw man ñooñu laa am maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax ak képp ku may seetaan di nuyu waa Pikine yëpp di nuyu ñëpp nag ok uh-huh. loolu am na solo euh, nu mu tuddati Pape Sarr. Mm-hmm. comme ni ma ko waxee rek defoon ngeen fi 100 pour cent Pikine. Mm-hmm. su ma juumul bu ngeen ko njëkk a mu ngi nekkoon ci combat wu. Ama Baldé Papa Sow. Ama Baldé ba loolu sax amoon na Koña Boy Bawal. waaw ñu dem ba benn moment loolu amatul. Mm-hmm. lan moo leen inspiré waat ba ngeen ni loolu kat amoon na waaye dee na da di def le tout pour déclarer ko ak affaire bi fan la jóg initiative. waaw loolu mu ngi jóge si diggante. pere de Gaulle Lagnang Souleymane Balde ak euh, ñoom Ibou Sy ñoom xam nga ñoom Pierre Bourkhane xam nga Paala si lañ ak Aliou Ba magu bàcc Seras man ci lañ ma woo ñu def suñu première réunion ñu gis ñu gis affaire bi daal ma rafetlu ko si lañ ñu bindee convocation yëpp man dama jàppoon ni Pikine 17 écuries la léegi 20 écuries la ñu convoqué leen ñoom ñëpp muy affaire affaire boo xamante ne tey yaakaaruma ay caaxaan a koy yàq. Mm. ñu koy rafet non non caaxaan du ko yàq lii moom. lii ñu gis nii ku si nekk jël na parole Souleymane Balde ñoom ñëpp jël nañu parole te ñun man maa ngi seen ginnaaw. Mm. maa ngi seen ginnaaw te lii laa doon xeex Lamine. Mm. Pape Sarr Pape Sarr yëpp lii rek la doon xeex te li ma doon xeex tey yàlla defal na ma ko. tey Pikine nekk na benn. defoon ngeen ko fi ñu jékku jékku gis mu tas. Mm-hmm. est-ce que seen première réunion yi xool ngeen lan moo ko tasoon pour ngeen mooy ko. waaw xool nañ lépp. xool nañu lu ko tasoon mooy tey manque de confiance mu ngi si wóol ñàkk wóolante bi loolu tamit tas na ko comprendre nga ak xam nga ak ak accident làmmiñ yi nekk ci micro yi loolu tamit bokkoon na lu ko tas loolu yëpp dañ koy éviter man Pape Sarr bu may waxati site internet tamit damay woo ku mel ni baaxum woo Paala woo Aliou Ba ne leen lii ak lii laa bugg wax ñu ne ma waxal defal lii ak lii ak lii yaa ngi may dëgg mm. lu baax ñu wax ko loo xamante ne ñu xam ne lii day yàq ñu teggi ko. Mm-hmm. waaw. ok loolu waxtaan nañ ci loolu ba pare bi ñu defee suñu première réunion bi après dañuy def assemblée générale. écrit bu nekk benn membre nekk fi dégg nga. xool lii defuñu ko pour Ama Baldé wala Boy ñaa wala Eumeu dañ ko def pour mbër yu ndaw yi tamit mm-hmm. mbër bu ndaw bu amati combat mbër yu mag yi ñëw fekk la sa écrit ñëw jàppale la autorité yi ñëw di génne budget yi ñuy budget si jardin yeeg def ñu ci hôpitaux ñu jàppale ko écri école de lutte yi nekk fi waaw école de lutte yi nekk Pikine du ñu bàyyi benn école écrit bu ndaw ba bu jëm bu mag parce que écrit bu ndaw amu fi vingt écrit yëpp dañ leen bëgg woo dañ am benn jour yoo xamante ne lënd bi ñu defee ko gànn seeraas mbër yëpp dajaloo foofu jàppante contact tey ñu defee ko booy ñaa ginnaaw suba écrit fàllaay wala ñu daje benn géej. loolu day fekk combat du am xanaa. comme non day fekk am ñàkk am. waaw léegi léegi damay ñëw ci combat hmm. gis nañ ni am ngeen combat. Hmm. muy combat ak Franc mu hmm. euh, ban taxawaay la ci 200 pour cent bi fas yéene waaw taxawaay bi mooy li li am nii tey sax. loolu moo gën a tax sax lii am tey comme combat bi jege si na xam naa moom Sokh moom bu soobee yàlla dina gisante ak Eumeu Sène gisante ak Ama gisante ak Boy te ñoom ñëpp dañ ciy takk rip. soo xoolee ñoom jarade amul mbër bu manqué ci kaw. dégg nga Pikine yëpp génn te man leer na ma ne bu ñu génnee ñu nekk benn daanu day dina jafe de làmb bu Ama Baldé dugal loxom ama seen duggal ci loxom ak booy Niang ak booy yi ku nekk ki jaar fii kii jaar fii ñu ñëw gunge sokk. <laughs> noo tuddee jaar foo xam nga jëm indi. Ah. indil sokk waaw man ma jaar ci autorité yi. ma jaar ci autorité yi mu leer ne du manqué sarax du manqué dara ñu jàppale ko ci ah day des ci moom de. mais autorité bi. du waxuma autorité mooy tey jàpp jàppale ko comme xaalis. xaalis du xa mais ay wàllu sarax loolu tamit loolu quatrième position la mais sokk ku ko xool du xaalis sax mais xam nañ ne pare na bu ñu summee ko ñoom ñaar da nga xam ne kii du ko ëppalee liibar gan waa liibar franc du ko ëppalee. billaahi wallaahi champion la nag. dégg nga champion la am lu mu def fii Pikine. Ah, daan na fi franc dafa mel ni kii la fi daan Pikine ah Tyson 2. ak Jara 2 ak Jara 2 la fi daan Pikine. waaw gis naa nag muy yootu ñoom Eumeu Sène ak ñoom Ama. waaw nee na moom instant yii eggagul foofu parce que deux mille cinq cent la. non mbëru deux mille cinq cent la loolu mooy deux mille cinq cent eggagul foofu. voilà eggagul foofu du damay daan soq rek wala damay bëreeg soq rek dama war a bëreeg Ama Balde wala Boy Niang Ama Balde di bëreeg Modou Lo Eumeu Sène di bëreeg Balla Gaye Boy Niang di bëreeg Balla Gaye ngay ñoo naan ay bu ma jógee fii day wax wax bu sol tubay su ma rakk la su ma xarit la wax day sol tubéy franc yaa ngi may dégg gis nga yow génne goo lii si garga mboose bi génn goo ci yàq yu bari yi yow génn goo ci ngay wax ay waxu Eumeu Sène mel ni yow ndam li da ko téye sa loxo billaahi wallaahi dina daj loolu laay wax na Pikine waa yëpp génn ñu xam ne ñun jàmbaar la ñuy gunge jàmbaar lay bëreel xeeb na ko nag pour moom ndam li mu ngi ci loxoom da ko xeeb. daf daf ko xeeb. billaahi wallaahi waaye billaahi mu ngi xeeb musibaam billaahi. léegi bu ngeen jógee ci combat boo am ngeen xamante ni bu sérieux la ci carrière Boy mhm. seen diggante ak Balla Gaye numéro 2. combat boobu après moom ngeen di song ndax mu ndax ndax ndax Modou Lo ak ak Ama Baldé dara leeragu ci. Mhm. Eumeu balaa bëree ak Balla Gaye ak moom ba pare. Mhm. combat a sóoboo. comme ni ñu sooboo ci combat bi rek la ñuy sóoboo ci yeneen combat yi ci des di ci ñaan yàlla may ñu ndam di ci woowaat waa Pikine yëpp ni ñu defaree soq ni noonu lañ koy defee Boy Niang noonu lañ koy defalee Ama Baldé noonu lañ koy defalee Pokola tamit am na grand combat. moo kan mook euh, Dame Suguer numéro moom day bëre grand combat moom it. dégg nga ak waaw le 17. ñoom euh, ñoom ambouraas ak boo yëpp am combat dégg nga man loolu laa xam may wax mbër bu ndaw bu am komba na ko pikinois yëpp génn ñu ñëw taxaw ko. parce que wax ji bëri na waaw Balla <laughs> ñëwagul. komba boobu ñëwagul. ñoo mm. am nañu sérieux problème moom. 100 pour cent 200 pour <laughs> day dëgër. day dëgër day dëgër. xam nga Balla du maye dara. te day lamb. ñun tamit du ñu maye dara. waaw waaw waaw non boobu pour cent la. waaw 100 pour cent la. non liiru yokk na ko. non liiru waaw yow liiru moom mooy loolu liiru ñun la faral. liiru dóorkat bu mag la. et puis liiru nee na da ngeen def seen 200 pour cent loolu de non liiru bu mu def loolu liiru na bàyyi yooyu. dégg nga moom moom xamante ne ab na vidéo yoo xamante ne maa ngi ko yore moom si moom waaw mooy vidéo kii bi immigration stade bi maa ngi ko yore. lu may si génne boo ko fa def kat. waaw. dégg Sénégal ak Égypte ñoo ko énigré waaye moom am na lu mu énigré maa ko wax moom xam la ma bu baax moom du dugg si man de. Ah, suma xarit boobu xam na ma de non moom suma xarit la keroog bi ñu waxtaanee ñuy dox combat la de guerre ndeysaan damaa yëkkati télé sama téléphone woo ko. Ah. di ko mbal moom mu koy metti lu tamit moom tamit na ko waa Géejawaay jàppale tamit wax dëgg yàlla dañ ko fonk ñu jox ko cëram Lirou Diane suma waay la suma xarit la mm-hmm. te noonu. nit cooj na ko tali bu mag laaj ko daf maa xeexloo tali bu mag billaahi wallaahi liiru su ma nit la ba pare nit ku baax te li muy wax noonu defu ko pour dara day def rek pour neexal ah, waaw day défendre géejawaay te am na ci droit moo tax su ma gisee ku mel noonu man dam koy jàpp comme ñoom Batika nu ñu mel ak kaana nu ñu mel parcelle waaw ñoo ñu noonu waaw del tàcc waaw tàcc tàccaaral waaw léegi lamin waaw maa ngi ciy woo nag waa Pikine yëpp ñu ñëw jàppale seen rakk sook fépp fu kilifa nekk woo nañ la ñu ja dafa am sama xarit nag bu ci dugal loxoom ci combat bi waaw nañ ci génn sama doomu ndey nga kilifa bu mag la génn ci yow sama xarit nga génn ci nga xam ne yow yàlla moo ñu boole may ñaanal sook yàlla may ko ndam di wax diaspora bi ñoom Fallaye 2 képp ku nekk si diaspora di doomu pikin ñoom Zayan Jinne euh, ñoom Jinne ñoom euh, Pape Cissé Jadli képp ñoom mëppool képp ku nekk si jasporaa bi woo nañ la ngay doomu Pikine nga dugal ci sa loxo jàppale ko ci côté bu ne xam nga yaayaa jàmme képp kuy doomu pikin ah maa ngi lay si woo nga nekk si diaspora bi nga ñëw jàppale seen rak Bàcc Seeraas woo naa la xam nga suma xarit suma doomu ndey Bàcc Seeraas waa gis nañu Aliou Ba gis nañu liggéey bu rafet bi mu def tey li lépp moom la maa maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu ñëpp tamit waaw Gaston Production présente. Gaston Production, le Don King de l'arène sénégalaise, organise un autre grand choc de rêve, le choc des chocs, le choc des titans. Attention, Balla Gaye 2, le lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2 ki doon na Double Less, Balla Gaye 2 ki ne woon man xaalisu làmb la ñu ma ngente ah mooy daje kan Gris Bordeaux ki doon le Tigre de Fass ki doon Mbaye Guèye ki doon Tafa Guèye ki doon Fass fa làmb soso dinañ ci tëgg ndënd ba ndënd